واستغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم زلمنا على استغالي بفروض وسنن سكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما خني waxaadani lay bi taxalli min baadi ma xasaba bi taxalli wajalani fi ilal ulumi wal fawsa bil amali bil maalumi summa salaatu bi salaamin tabia ala lazi xasiyan atabia

te yàggal fi sëñ Amsatu mbakki mii di sunu xarit di sunu sëriñ ci sunu kanam te debbu ko kattan goo xam ne dina ci mën a liggéeyal sëriñ Touba maam Awa Mbàkke mii itam di jëwriñ ci kër sëñ Amsatu ñu ngi rafetlu ab taxawaayam buñ ne toolee mooy ci man te kenn ku ne xam na ni jëwriñ ju mat jëwriñ la yàlla na yàlla guddal fanam te Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moom la ñuy xoolee sëñ Amsatu ci moom yàlla may ko barke may ko fan wu gudd ko ànd ko wér sëñ Fallou Sille nag yaa may wax loolu yi waaye mënuma ci dara baat mi dafa dee kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di leen ñaanal fan wu gudd ko ànd ko wér baat ki wax ji kat damaa mënut a ñàkk wax waaye baat koo xam ni si yam si rek lay noyee ndax boo ko fekkee ca tool yi Daaru Salaam yee da ko gën a naw te wax na wax joo xam ni ba mu ko dégloo moom ak doomam Cheikh Modou Fadel sama xol sedd na ci góor yi ci ñoom la seen bàyyi defoon mooy Cheikh Modou Fadel moom la ma soxna Awa jaayantewaat ak Serigne Amsatou mi Cheikh Modou Fadel dañuy wax ni dafa ni njureel gi ma Serigne Touba jur jaay naa ko jënde ko ak taalibe ba buñ masaani lim taalibe day wax maa ngi bokk ci taalibe waaye dégg naa ci maam Awa mu wax ci kanamu Serigne Amsatou ni ko man de sëb taal bi dong laa fas yéene doon te lépp loo ma digal fas naa ci yéene xëy li nga li nga ma digalu nag doo ci seet fallu mii di doomam Cheikh Fallou ni ko ñun de ay bi dong la ñuy doon séyam sa mii dong lañ fas yéene def ko muy sunu sunu Tuubaa lu mu ñu digal danañ ko def lu mu tere fasunu ci yéene jaar te loolee rek la ma toppee ak sëriñ sëriñ moom lu la digal defal lu mu la tere bàyyil ndax ku la raw ci sëriñ bi mooy ka la gën a topp ndigalu sëriñ bi ndari sëriñ moom bëgg yi ko bëgg ci ngay mën a jëriñoo bëgg yi sëñ bi bëgg sax mën na laa bañ a jëriñ waaye ku la raw ci sëriñ bi gën la ko bëgg laa mën a jëf ci sëñ lay raw ba faaw ndax yoonu sëriñ Tuubaa moom jëf jër la moo tax képp koo xam ne da aju ci sëriñ Abdou war ngaa am doxin wu sell woo xam ne ku la la ci ndax moom da nekk na fi ba jóge fi hmm. fasul yéene doon dara dul taalibu sëriñ Tuubaa ñu ne bi ñu àndeek moom ne ci daara ji di liggéey bu nu paree danaa liggéey la dama tàmbali liggéey bi Serigne Touba nangam lii ngeen am nag mooy li ngeen bay ci nawet bi danaa ko ci def lu ma waay jox ma defaatal la ko ci te wallahi asim boo ko masaan yàlla nga ko defoon yoonam du ci ne waaye bokk ne yàlla nga am ngërëm Serigne Touba ak koo mën a doon seeb la tàllal loxo yi ne la amin mu wóor ma ni Serigne Touba danga ko ñor ndax jege naa ji ku jege sëñ Abdou Khadir muy sëñ ma jama sil la mooy sëñ Abdou Khadir yi seen ñett sëñ Abdou la nee fit bu dëppoo comme xelam jagleeg sa da la ci am wërsëg woo xam ne àdduna bi yëpp lay jox te amoo ci soxla da ngay joxe bay leb di joxe ñàkk yitte ci wërsëgam jagleeg sa borom la ci am ah daal di wax ne tool bi nga xam ne Sëñ waa bàyyee na ko fi nag bay na ko ba teg ci ñaras te loolu mooy lu ñu seere ñun ñëpp ñun ñii sëñ Abdou doon defar defar suñuy njaboot ndax gone bu bu juddoo gisul koy tuux gisul koy man gisul koy naan daayira jàng xasida siyaare sëriñ bi kooku sëñ Abdou ko indi ci kër gi boo ko indi ci dëkk bi moo tax ku di taalibe rek amel nga ko njukkal léegi kat boo xam ne boo ko xamee defal na la boo ko xamul defal na la ñu ne xam nañ ko li mu defal xam nañ ko bu baax ku fekkoon Tuubaa ju jëkk ak tey da nga xam ne Cheikh Ibra liggéeyam rafet na lool ñii mu fi bàyyi it yal na yàlla guddal seen fan wéral leen ne ne fas na yéen doon tiitroo lenn lu dul doon taal si Sëñ Abdou Lahad te it képp koo xam ne dégg nga Abdou Lahad Gadiaga maa ngi lay ñaan nga ci taal bi Cheikh Abdoulaye rek ndax man bëgguma dara Sëñ Abdoulaye dong laa bëgg ak jii nu ñu teg ma foo xam ne man ne sama garaat àggu fa waaye seenu baax ak xam gi ma xam ne bëgg naa ko Sëñ Abdoulaye moo tax cër bi mu ci am ñu jox ma ko wallaahi lasim dese luñ ma dara xanaa ma dee ñu yóbbu maa jëna rek te loolu moom xam naa dana kon nag ñu ngi sant bu baax ngeen ñaanal Sëñ Amsatu mii yàlla yàggal ko fi te wéral ko sunub saga de ndax moom fu ñu tudde yoonu Sëriñ Tuubaa wii bañ jël simmi ko jëf leen te kaw kay kay jaa wax lu juum te dérëm koromp ko ndax damay waxtaan ak ñi ma dëkkal ñu ne leenu neex ci seex am sadu bay wax ku ne xelam dem ci sëñ Abdoulaye mënoo ko wane oto mënoo ko wane million ndax lu ci na regg na ci te regg ba regg ba regg bay bay ba desal moo neex a bokkal boo gisee kuy wax mu wóor leen li muy wax nekkul ci moom du jëmm ji lu mu la wax rek mooy la mu nekk la nekk ci moom kon nag ku dëggoo ngi nii ku gëm sëñ Abdoulaye te moom dëgg rek ci lay dox suba ba ngoon kon nag baax na jërë ngeen jëf yàlla na yàlla may mu am fan wu gudd téeméeri téeméeri at mu dund ko ci daraja Sëriñ Tuubaa. ci yow laay seer ci yow ko am ko la wax la moom jërul ngay wax te li ma waroon a wax lépp Sëriñ Abdu Lahat wax waaye nag dafa laal ak bëgg Sëriñ Abdu Lahat ak lëggeel ko te may seere ci loolu. doom yi tànk bu ndaw lañ ko ndiwoon ci daal di seen fa bokki barga ku ne xam metti na naqari na tàng waaye fa la nekk ba ñëw tubaab bi la sanc ko mu nekk fa nekk ñëw di jàmbaar di sama xarit nag fonk njabootu sëñ Abdou Lahad yëpp amul ci xej ak seet ndax la sëñ Abdou wax naan ab wal soo bëggee mokk da ngay door ci digg ba mënoo jokk ci ñëpp waaye ki fi nekkal sëñ Abdou Lahad mooy mooy digg boo fa dóor rek dóor nga ñëpp boo bu ko defee ko ci xaj nga ko ci man nag daf ma bu baax a baax ndax euh, sama sama sa sama xaritoog moom dafa jiitu euh, muy jokk ci sëñ si waaw ndax sëñ mooy sëñ moom jokk li ko laay bëgg wax waaye sama xarit moom dafa yàgg lool tudde naa ko doom moom bi ah. sëñ Sidi moomu jox na ko doom mooy soxnaam kon nag bëgg sëñ Abdou Lahad moo ko may lool kon si sëñ Abdoulaye ni nga bëgg si sëñ ba bëgg si sa turandoo yàlla na defal lu kaw sa jot saahir ak baatin Cheikh Mamadou mi ñuy màggal nag moom dafa foofu lépp jox ko sëñ Tuubaa desi bu dara say bi sëñ Tuubaa moo ko may lii li maam te ko ne ñeena ko cër bu rëy la waaye nag bunt bi moom tëjewu bunt suñu borom bu tëjee mukk tëjewu te tëje ku fa jaar rek danga am dara kon nag su màggal yu mel ni ñëwatee ñu koy fàttaliku ndaw ñi di ko xam da baax te la la sëñ Abdoulaye waxoon ni boo bëggee yor genn satala rek julli ci naan ci sangu ci nooy def da boole géej sëñ Tuubaa mooy géej soo boole géej dootoo manqué ndox te géej mën ngaa tuur ndox fii léegi sangu fii léegi jàpp naa soo bëggee dem togg sëñ Tuubaa mooy géej te jëf yi jëf yi jë sëñ Tuubaa na sëñ Abdou doxoon muy dem Màkka rek ko Ceerno dama laa bëgg jox bu subaa nga ñëw ma jox la bu yóbbal ko waaye du xaalis nag dama bëgg boo xëyee rawan ak la nga fay def na ko def addee sëñ Tuubaa foofu ngay tàmbalee ndax euh, jëf lu mu rëy rek sunu da koy seet te ci gisul na bi sa da la koy sànni sëñ Tuubaa nag suñu borom dafa bëgg léppam ba loo ko jox te jàll ko yëpp da sëñ Fall nag moom dafa jox sëñ Tuubaa lépp moo tax moom amut yàlla nag na jaaxam li gën a jafe nag mooy da ko réussir ni mu ko réussir mooy la mu bëggoon bañ ko ay doom dañ koo bëgg ba ñu sëtam loolu nag kon ñi ngi sant njabootu sëñ Fall gépp doom yeeg sët yi ñaan li nga xam ne seen ndone yi ba jur la te mooy ndone li am solo ndax euh, lu ne day jeex dana jëm sallallahu alayhi wa sallam suñu borom waxee waxee waxee waxee waxee ak Ibrahima def ko xarit da ko caañee ndax suñu borom na tax sallallahu Ibrahima xalilan xaritoo yàlla dafa neex ah, comme yàlla na xarit nag sa yonante bi da koo dégg ñee ko ci